yaa ko moom lan ñu ngi la jëlee fi yaa ko moom. eh ngaay fi nga taxawoon. eh ñu ngi la jëlee fi yaa ko moom. dëgg ah. dëgg la ko fi mu nekk. booy luy cinq mille la de. eh na doon junni nga daan ma cinq mille la. teg ko fu mu nekkoon. ñaata fépp suuf ñoo nekkoon si kawam. nga compter waa fépp suuf yëpp tegaat ko si kawam. ayca eh man woon na.

ngeen def. te xanaa waroo. papa la man maa feebar. ah. ban façon feebar noonu. maa si biir rek. dëgg la kay an sa baay. sa papa mi ngi si biir dana ma sa baay. sa papa mi ngi naa dugg oo ko waaye damaa sonn. te koor gi métti dugal ma ko. papa la mënoon ngaa. ma ko. papa. daa xamoo ko moom daa xamoo ko. du ko rek nga ol moom te ma nga jël sa temps ndànk napp nappal ko ndànk ndànk ba mu jóg nga ne kaawe kaawe sa papa la. papa la dama rek dama rek kenn du ko yeewee noonu.

certificat imbécile imbécile ah lọ́ọ̀bà lọ́ọ̀bà lẹ́tọ̀ tuntun kai papa la san papa ne am lọ́ọ̀bà tuba nu ma wa se papa la wa san papa ne nga fekk ko ci bi yow benn daa la ma tegoon fii eh musa moyam de Eh, eh, eh, li ma tegoon fii génne ko. du ma sama yow yóbbaate yaa ëpp yow. li ma tegoon fii yaa ko lekk génne ko. damay jooje xam dafa yee discipline dafa dafa yi. bu yàggoo ne maa tay ba ca ñax ñax yi man maa tay ba ca ñax nga naan du ma sama morom yow. moo ko doon yow da ngaa da ngaa mel ni ko doon. moo ko doon ah. yow yow yow waroo bàyyi xale bi teg war ko lekk nga lekk. moo ko doon mënoo bàyyi su may indiscipline xale bi ngay wax kii dama koy yey. parce que ngay am jom mm-hmm. yow xale baa ngi woor am jom am jom di woor eh may ma yow tuuti rek xale baa ngi woor ah tey mu wopp li mu war a lekk nga bëgg ko lekk yow la lan moo la dal xam bu ne ma papa yow la dëgg yàlla wax dëgg yàlla papa ay bu wax papa man ma yeggu ma ba eh, xam bu dul yow kan la papa ak ma dégg sa ndey sa bàyyi ma yeggu ma ko parce que yaay ma ko sax moom la de ñu leen sax baax maa dégg nga ñàkk sa ndey sa bàyyi ah duma la sax tan alhamdullilah waaye eh, eh, la muy eh, ne sunu ya, nga ko de ah kii de ya, yàqu na ba pare li nga def sunu hôtesse yàqu ya, na ba noppi ah soxna seega soxna seega hors de waay iya, duy ma kii xam nga rek benn baa dafa lëj amul jom du ko àgg ci biir am na liggéey dafa suñu àggale wala ba mu rek xam nga si dafa tàng dama bëgg indi baa toog fii ndax dama war sol technique nooy waxee ak nooy doxee dama génne baa nga ñëw toog fii ah yooyu da nga bàyyi xale bi ma seet yàgg ma yëg nañ dem rek yàgg ma loo gis yow la. wala loo ma yëg waaw dangaa xorom nag jiw ah. ah, baax na. dañ dem dafa am banaan ak pom papa. jëy sa kaya ñax yegg nga de. yow li muy. waaye bu ma xool waa yow. lii la. te mag bu ñàkk xiifoon rek waaye xam nga man xiif rek.